mbokk asalaamaaleykum ñu des waat ak yéen seen télévision nationale RTS jot leen xibaar yi fi rusande ci subaak léegi ci bopp xibaar yi dund yi ndaw yi fas nañ ci eh, taxaw loolu nag mooy teemu vacances agricoles ak patriote yi nga xam dañ ko amal ci jamonoy eh, nawet muy nag lu waa dalu joon gu ñu dénk waa ndaw yeeg tàggat yaram ak cosaan ak aada taxawal lëkkaloo ci ak eh, waa daw dalu joon gu ñu dénk lépp lu aaju ci wàllub mbay meek càmm gi ab xaatim lañu ko mandargale ginnaaw tabaski Soumbédioune moom kenn gisu fa nit foofu nag jën dafa ñàkk pêcheurs yeeg mareyeurs yi ñoom ñi ngi wër rek clients yi ba tey rek ci wàllu tabaski bi ci diwaanu Ndar moom mool yi ñoom ña ngay noppaluku ci ak njaboot gi loolu tax na ba liggéey bi yéex waaye ñenn ci suñu mbokk nappkat ñoom ñoo ngi ci profito ngi defaraat seen jumtuwaayu liggéey lii nag di xibaar bu neex euh, ci waa ñu yëngu ci wàllu athlète ci Sénégal Cheikh Tidiane Diouf mooy champion d'Afrique bu ñeenti téeméeri mètre mun li nga xamante ne am na ko ca Douala ca euh, Cameroun te jii ci ngoon ci wàllu football Teungueth FC ñoom daloon nañu seen trophée euh, loolu nag nekk li nga xam ne am solo ci wàllu wàllub làmbu tefes fanweeri réew ak ñett yu bàyyi ko Afrique ñoo ngi fi mu jongante bi nga xam ne ñu ngi koy ameel ci arène national mbokk ñu leen di gërëm leen santam bi ngeen tam seen télévision nationale RTS ngi fi topp xibaar ci ndoxteelu xibaar ngir feex nag ci wàllub dund gi xale yi taxaw nañu tembe ngir sóobu si ci nag euh, vacances agricole ak patrouille yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal te waa dalu joonu gi ñu denk wàll ndaw yi ak tàggat yaram ak euh, cosaan ak aada lëkkaloo ci ak waa dalu joonu gi ñu dénk lépp lu aajo ci wàllu càmm gi ak euh, mbay mi ci ab xaatim nag lañu ñu ko amee lu ñu bëgg rek mooy tontu ci bëgg-bëgg ndaw yi mooy wutal leen xëy penambaw convention bi ñu xatim ci diggante ñaari ministère yi bi yor walu ndaw ñi ak bi yor walu mbay mi càmm gi ak souveraineté alimentaire manam moom suñu bop ci lu ñuy dundee nekk na lo xamné ne daal dafa bokk ci projet bi nguur gu bees gi indi indi ngir rek Sénégal mëna a bopam ci walu wone ne rawatina rek jaarale ko ci mbay ak ñi nga xam rek moy ndaw ñi nek na lo xamné ne daal daañu ko amal ci ay vacances yu ñu tuddee vacances agricoles ak patriotiques amal ci ay action yu am solo. vacances agricoles bi vision bu mu lalu

ki yor wàllu mbay mi moom di docteur Mabouba Diagne nee na rek nekkul rek ab accord boo xam ne dañ koy dakkal gannaaw vacances yi waaye de nekk loo xam ne dafay law ba ndaw ñi gis seen bopp bu baax a baax ci biir mbay mi rawat na euh, ngir ñu am souveraineté alimentaire. partenariat bi ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy def euh, pour pour digitaliser parce que léegi xale yi xarañ nañ ci informatique bi xarañ boo xam ne. Euh, euh, nous avons ñu ñu informatique pour moderniser l'agriculture euh, et l'élevage. Nous bi créé créer aussi un centre de de de service agricole centre de mécanisation Tayji, nous bëgg nañu li ñuy mébét mooy ñu créé fa euh, commune bu mu sur les 557 communes du Sénégal ñu créé fa coopérative coopératives agricoles yoo xam ne nii da nga à allo tracteur allo tracteur ñëw nous. bëggee ñu euh, euh, sa sa système d'irrigation sous paanee ñu former ay xale yi ñoom ñoo la koy ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo la koy sant ñu ah, yi aussi ñaari ministères yi collaborer ak groupement de jeunes yi ba nga xam ñu ñu ñu ñu digitaliser agriculture bi fépp fu baykat nekk. Euh, coordonnées GPS ya nga fa nekk étude de sol bi def nañ ko lañ fa wara bay xam nañ ko kañ kañ euh, ku ko fay bay xam nañ ko nga xamné euh, ministère du euh, de la jeunesse ak ministère agriculture dana mëna a lëkkaloog yeneen ministères yi nga xamné moy ministère de commerce pour ñu mëna def planification bi. lolé dina tax rek ci ñett wër yi ñu wara amal li di vacances agricoles ak patriotique na tax rek ñu amal ci ay action yu am solo ñom ndaw ñi dal da nañu liggéey ci walu mbay mi ba rek gis seen bop bu baax ci li nga xam rek moy seen niveau de vie rek daal yëkëti ko bu baax. am koom tax rek ba Sénégal mën a taxaw ci wàllu koom-koom ci wàllu souveraineté alimentaire loolu lépp ñu jaarale ko euh, ci euh, Sénégal. da jërëjëf soxna Penda Mbow ay jumtuwaay ki sine ke paaka yeneen nag gànnaay lañu waa agent yu uh, administration pénitentiaire bu camp pénal uh, gis ci néeg yi nga xamante yàlla dafa dogal uh, caabi féete leen ginnaaw mu doon la nga xamante ne rek dañ doon nag saytu seen yaram ak seen néeg yi ak li ñu sol ak seen poche ak li ci nekk ginnaaw fitna gi fa ko woon nag àllarba bi ñu weesu ci suba si lépp nag ma nga soqeekoo ci chambre huit maanaam néeg ba nga xamante ne rek moom la mooy juróom-ñetteelu nekk ba ca biir euh, kaso ba euh, daal buñ leen di euh, palpe bañ maanaam buñ leen di saytu dañuy bañ buñ leen woowee seen tudd xool ko fa nekk ku fa nekkul du ñu tontu loolu nag indi yëkkati woon fa ay fitna Moussa Mané indi ñu ci ab gëstu. ay téléphone portable ay carte SIM ay clé USB ay weñ ak ay xeetu yamba boole ci xaalis lii la agent administration pénitentiaire fekk ci néegu ñi nga xamante ne ñoom la caabi féetee seen ginnaaw fii ci camp mu melni nak nag le caméra di dugg fii ngir mën filmer li di mel ginaaw bi nga xamantene ciow coow na fi ci mercredi bi ñu organiser une fouille généralisée chambre par chambre ñu saisir portable du bari saisir une quantité non négligeable de drogue ak lo xamanteni dans le jargon pénitentiaire jam leer lañ koy waxee manam dañuy jël ay pack diko transformer dañuy jël ay kuddu diko transformer en instrument nous avons a Même aussi on a tout saisi. ci saisi. amna kenn saisi. xamantene sax dafa xoti ay page saisi. ngir ci téléphone mu melni nak tout day niveau insécurité bi nga xamantene ne nañ ko ci te insécurité tout yu bëgg mu le 19 détenu yi tout ñu ñu ranger sen toilette agent yi appel mu am détenu yu la chambre 8, ñu bañ lànk di kenn du leen appel agent yi négocier ak pour convaincre leen pour ñu nangu appel ndax loolu malheureusement ñu bëri si ñoom lànk Nous na dem nañ ba nga ni dañuy jël ay pour rek bagn appel bi il a fallu que suñu agent yi jël extincteur fay fay matelas yooyu ñu taal. ci kàddu directeur de la sécurité pénitentiaire moom nee na ñi nga xamante ne ñooy agent yi lacrymogène yu ñu utiliser dafa dëppoo ci sart yi nga xamante ne seen liggéey daf leen ko jox ginaaw bi nga xamante ne nemmeeku nañu ay trouble yu jógee ci ay détenus. ñu négocier ba sonn lànk ñun yooyu yoon may nañu. Nous utiliser la force uniquement pour les contraindre à respecter la réglementation de que nous def Nous employer la force pour dugal si ci seen néeg tey situation bi dalna bu baax ba outé ci bésu mercredi bi nga xamante na ñu gis ci ay vidéo yoo xamante ne détenu yi ñoo ko filmé daal di wane ay lakk-lakk yu bëri daal di saccagé li nga xamante ne mooy boutique bi nga xamante ne moom moo nekk foofu ci biir camp pénal waaye tamit ay lacrymogène yoo xamante agent pénitentiaire yi sandi nañ ko ngir mën a rétablir situation bi. amul kenn ku ci gaañu du ci côté personnel du ci côté détenu ba heure bii wax bii tembe tembe bu may wax nii ken ñàkku ken ñakku ci bakanam alhamdulilahi rabil alamin parce que encore une fois limay wax moy maintien de l'ordre en milieu carcéral ci ça? c'est fait de manière graduelle étape par étape première étape bi une négociation deuxième étape bi moy emploi de la force si c'est nécessaire de manière proportionnelle si c'est nécessaire en vue de contraindre le détenu à respecter la réglementation une fois l'échec échec net, si la def utiliser des armes non létales Manam yu dul dans le cadre du maintien de l'ordre mooy ay grenades ay les fusils à pompe mais l'objectif c'est en vue de contraindre le détenu à respecter la réglementation ci lolu ki nga xamante moy mooy bu yor walu justice mom ñëwoon na nemmeeku situation bi nga xamante ne amoon na foofu ci bir camp mu daal di rafetlu taxaway bi nga xamante agent yi taxaw nañ ko ngir delloo ci jamm ji ci bir prison bi moom tamit mu daal di leen di digal ngir ñu mën a taxawal benn enquête boo xamante ne pour ñu mën a situer responsabilité yi. donc comme que situation crise lañ nekk dina am ay restrictions dina am lu ñuy wàññi tuuti pas totalement pour ñu gën a maintenir sécurité bi maanaam visite yi daañ ko xaw a wàññi tuuti promenade yi daañ ko xaw a wàññi tuuti maintenant de manière si situation bi changé ñu redevenir à la normale. ci jamono ji le jam la ñu ci situation bi dalna bu administration pénitentiaire moom pas question mu la li nga ne la garde vigilance la nekk saa su ne comme yeneen prison yi nga xamante ne ñu ngi ci Sénégal am jafe-jafe mooy surpopulation bi nga xamante ne nañ ko foofu ci biir mu situation boo xamante ne day woo yi nga ne Sénégal jamono ji jërëjëf euh, Moussa Mané ci loolu nag la ñuy dugal euh, suñu gan xibaar yi tey dafa am gan mooy président Sir Gomis de secrétaire général euh, bu observateur barab yi nga xamante ne rek mooy prison yi président ñu ngi lay nuyu. maa di wax rek ni li nga xamante ne rek moo xewoon camp pénal ci ay bés yi ñu weesu maanaam àllarba est-ce que bett la. waaw question kon la bett na ma damay jàppale suma su ma bett loon donc dama koy yëg te loolu du yoon si àttekat lu ñu lu ma bett la noonu laa ko mën a téye waaw. léegi nag ñu bëggoon xam rek euh, euh, li xew euh, camp pénal bett na ñëpp metti na ñëpp mais ñu bëggoon xam rek ana yan leeral ngay indi ci li nga xamante ne rek xew na fa. waaw ñu bi ñu ko yëgee. man bi may wax sama sama kilifa. mu ne effectivement moom mi ngi doog a message bi. ñu toog waxtaan une heure deux heures de temps après mun da ngay dem camp dem xol la mo fa xew waye euh, demuma si si li ñu wooye liggéey bi ñu tàmm def manam visite parce que mom daf ma né mun na am rumeur la da ngay dem vérifier dam am na mutinerie wala amul effectivement ci la dem egg fofu assez sax directeur bi présenté wu directeur bu mag directeur général mais comme heure boobu si biti mom do xam am na lu xew mais j'avais senti que amone toute tension me retirer ci suba ci bana di que fekk ñu doon def ñu doon mais directeur bi quand même mu recevoir presque pendant 45 minutes donc dem nañ fa bi premier jour bi mais du contenu situation bi euh, ci suba directeur bi arrêté lu mu doon def mu recevoir Euh, pendant bon fanweeri minute ak si teg tot nañu waxtaan. mais li xew euh, camp pénal est-ce que yaakaaroon ni euh, moo xew ci day wane li nga xamante ne rek mooy nekkin bi xale yi nekk ci biir kaso yi. waaw kaso yi métti nañu waaye mënuñu wax li ñu mënuñu def li ñuy wax généraliser kaso yi toll am na kaso yoo xam ne boo fa demee tolluwaay nit ñi ak place yi fa nekk. Mhm. loolu moo tax ñuy wax population carcérale. ñu fa nekk dañoo bëri par rapport ak li kaso bi attan am na yeneen kaso yoo xam ne boo fa demee di nga gis ne dañoo yarax mu lay jox exemple bi ñoo ma koy wax toujours dem naa fa mois d' avril année daaw chambre yëpp matelas orthopédique moo fa nekk toutes les chambres matelas orthopédique te prison bi dafa yarax boo ñëwee rëbës effectivement di nga gis yenn chambre yoo xam ne nit ñi dañoo bëri xam ne léeg-léeg ñu yokk place yi mais boo yokkee place yi mënoo yokk air bi fa nekk mënoo yokk volume bi

gis nañu dem na Vélingara am ñoo xam ne dañ leen jëlee Tamba parce que Tamba ak Kédougou xam na ku doon tooñe ministère des affaires étrangères lañ ko war a dénk parce que xam nga zone aurifère bi fu bëri ay gan de ay gan ñu fëpp ñu jëlee leen fu andi Vélingara ñu dem Vélingara gis bi mun ne man dama bëgg a dellu Tamba parce que fii aw moo fi mbokk donc déplacer nit yombul day fekk ñu atte ko ba pare parce que bu fekkee yow juge d'instruction bi da lay soxla dina metti ñu lay déplacer chaque fois bu le juge bi soxla yi ñuy déplacer la day métti mais bu fekkee atte nañ la teg la daan ba pare administration pénitentiaire day def li ñuy wax ay ay transfèrement administratif mhm. mun lay def pour di jouer si équilibre effectif mais ñi ngi déplacer léeg-léeg du leen arrangé te ñuy sori seen i mbokk voilà loolu mooy difficulté bi ah. loolu loolu am loolu doy na waar mais mais mais xam nga lu ma jaaxal ay ay image yoo xamante ni ñi nga xam yàlla dafa dogal caabi feet leen ginnaaw ñoom ñoo doon filmel seen bopp ci biir prison bi ñuy image di dem ci réseaux sociaux yi yéen seen liggéey ak nguur gi fan la cest dire fan la seen liggéey yam waaw li nga wax dafa am solo mooy doole bi réseaux sociaux yi am mën na tax leeg image yi rax maanaam ñu boole si loo xam ne nekkul ci si biir si biir prison moo tax attention

waaw mais xam nga fi mu nekk nii peut-être comme ni ñuy wax dañu wax ne euh, prison mënta nekk hôtel cinq étoiles waaye tamit am na foo nga xamante pour ngeen bañ a faagaagal àq ak yelleefu doomu aadama yaakaar naa ni euh, jot na pour nag euh, ñu mën a jàppale ñi nga xam yàlla dafa dogal caabi feete leen ginnaaw ngir nag ñu mën a feex parce que bu fekkente ne prison Sénégal yi fanweeri prison la ak euh, juróom-ñaar lan lan ngeen di xaar pour mën a jublu si seen mbir parce que lii tamit métti na néeg bi nga xamante ne dafa war a def téeméeri nit def ñett téeméeri nit loolu tamit wax dëgg yàlla doy na waar. waaw loolu solution bi ñun. suñu kuréel dafa bokk si euh, solution yi ndax dañuy def li ñu wooye euh, dañuy def euh, li ñu wooye prévention fagaru mm-hmm. léeg-léeg ñun suñu mission maanaam di dem si bërëb yi mm-hmm. mooy brigade mooy commissariat mm-hmm. di fa dem bu ñu neexee ñu tàggoo bu ñu neexee du ñu yëglu waxtu bu ñu neex ñu ñëw loolu bu ñu ko defee dina tax ñu ñu dénk doomu aadama yi ñu ñu ñu farlu ci seen ak ak seen yelef léegi dañuy def ay visite bu ñu demee si terrain bi li ñu fa gis loo xam ne méngool ak li yoon wax ñu dañ koy tëgg si kayit ñu jox ko ki ñu fa fekk. Mhm. ne ko lii yaakaar naa si yow la. Mhm. leneen li yaakaar nañ si kilifa yi si kaw la bi ñu ko defee dañ di may diir. Mhm. loi bi mel ni nag bu ñu toogee diir boobu gis ñu lu ci changé ñu wasaare ñu def publication bu ñu gisee tam ay ñoo xam ne dañ leen a lor wala gaañ leen wala dóor wala yooyu yoon may na ñu ñu bind procureur fa la suñu liggéey yem.

ay benn at ak yooyu léegi camp pénal moom ku ñu teg daan ba pare la yow atte nañu ba pare teg nañ daan li si yëpp ay daan yu diis la ñooñu ñooy dem camp am na ñoo xam ne dëkkuñu Dakar da ngeen fi andi Sénégal nag ñaari camp pénal rek la mooy euh, Liberté 6 ak Koutal fa la ñuy teg ñi nga xam ne ay daan yu métti lañ leen teg ñooñu boo xoolee waa Rebeuss waa Rebeuss bu ñuy génn pour doxantu ci ëtt bi dañuy aaye waaye si biir euh, li ñu woowee les camp pénaux maanaam Liberté ak Koutal ñoom bu ñu bu ñu yeewoo ci suba rek ubbi nañu bàyyi leen ba guddi heure wu ñu doog a tëj bu ñu dellu. Mhm. donc euh, euh, loolu moo leen di utale daal ñii atte nañ ñeent ba pare. Mhm. te li si ëpp ay daan yu bis lañ ñoom ñooy mhm. ñeneen ñi rëbës am na ñoo xam benn at ñu des foofu ak ñi nga xam ñu ngi xaar mooy li ñu woowee détenu provisoire. mais yaakaaru leen ne dina amaat yeneen fitna si yeneen i euh, prison. non fitna ñu ñaanuñu ko te wóolu nañu. waa administration pénitentiaire xam nañ seen liggéey bëri na ay kàngam ñoom nañ fexe ba def lu ñu waree la la sécurité active dynamique sécurité dynamique fexe be waxtaan ak ñi fa nekk ñu comprendre la moo tax ñu nekk fa gëm loolu itam ñu ngi def ay effort ngir seen euh, seen nekk mu mu tane ñu toll nii. Mm-hmm. laaj bu mujj mooy est-ce que mën nañu am yakaar ñu nekk ci biti te di leen bàyyi xel est-ce que mën na am yaakaar ne euh, dañ toog ba euh, kaso yi jaar yoon nekkin bi rafet. nekkin bi am solo ñu bàyyi leen xel bu baax a baax euh, ginnaaw li nga xam amoon na ci campagne ab Liberté 6. waaw man dina wax lu gën loolu yaakaaru ma ne kaso dina mas a moo gën li ñu gën mooy que ñi nekk si ñu bàyyi seen xel ñëpp teg seen loxo ci li ñu woowee prévention de la criminalité ndax bu ñu liggéeyul ci en amont loolu mooy tax kaso du bëri problème mais bu fekkee ku nekk sa koñ yaa ngi aar sa kër dëkkandoo yaa ngi ko boo koo gis muy def ñaata ko ko bul def dina tax nit ñi du ñu am ay jafe-jafe ak justice ba di dem. parce que yaakaar liggéey bi foo lañ ko war a defee. jërëjëf euh, euh, président Sir Gomis ñu ngi lay gërëm bu baax te yow yaa nekkoon ganub euh, xibaar yi. mën nañoo def euh, lu gën muy note bi nga xamante ne kii nekkoon fii jawriñ di Aliou Ndoye ginnaaw nag euh, bi gouvernement bi euh, jëlee matuwaay wàññi njëgu dund gi kilifay parti socialiste bi di maire bu Dakar Plateau moom moo jëlu nag moo yëkkati yooyu kaddu ci rek wax ne rek nañu duppook charte wàññite njëkk yi moo nekkoon nag invité point de vue ak Oumar Ñëng ñu déglu ko lépp lu jëm ci wàññi njëg yi dañ koy dañ koy dañ koy sant euh, mais dañuy vigilant que parce que ay annonce yu forte la woon yoo xam ne jàpp naa ne askan bi ñu ci bëre ndaw ñeeg ñooyu dañ ci amoon yaakaar ba ñu wóolu ñenn ñi donc il faut mu doon loo xam ne lu dëggu la euh, du ay li tubaab di wax ay mesurette mm-hmm. maanaam euh, wàññi naa njëgu miche mburu bi vingt cinq francs donc ñaar fukk ak juróom enfin euh, voilà fukk ak juróom maa ngi juum ci ci. ci chiffres mhm. euh, waaye nag wàññi naa euh, itam dootul par exemple nangami gramme waaye wàññi naa ci nangami gramme. loolu yàgg nañ ko def nañ ko def nañ ko ba fi mu sësee. Mhm. fi mu sësee nag mooy que ni bu ñu nee di ko def Sénégalais yi dootuñ jënd mburu ngelaw la ñuy jënd. te loolu par dama jël jël rek misaal boobu. Mhm. xëy na wax itam balaa ñuy. annoncé di wax askan bi dañuy wàññi euh, day fekk ñu pare waxtaan bi dégg naa ay euh, nu tutti ay boulanger yu wax ni ñoom waxtaan ñoom ñoom dañoo dégg ni ñëpp que dañ koy wàññi foog naa ni loolu euh, du mën a tax ñu jot li ñu bëgg leneen li itam mooy que ni baax na ñu naan dañuy accompagner mesure yi waaye nag seetlu naa ni réflexe bi mooy léegi lu ñu wax rek ñu ne na armée bi ñëw armée nag ci réew mi dafa am mission surtout ci jamono jii ñu ne euh, réew mi dafa laaj ñu gën ko aar te ci lañ taxawaay rek bu ñu gisee ni quand am na ay jafe-jafe ngir ñu appliquer mesures yi laaj na aussi ñu ñu indi benn rigueur ci waaye mais bu ñu bu ñu deful li may wooyee populisme parce que armée boo ko indee fii armée dafa am bu mu war a réussir du dem du dem échouer ndax yow nga réussir sa bu dee bu defuñu populisme te dañu bëgg loo xam ne day sax euh, li ñu doon def la ñu war a dellu euh, gën ko dëgëral maanaam

mu doon maire bu Dakar Plateau ginnaaw julli tabaski gi Soumbédioune moom euh, gisuñu fa kenn euh, te nag euh, barab la bu nga xamante ne rek nit ci dañu fa daan bëre nag bëriwul nag tamit jën suñu mbokk nappkat yeeg mareyeur yi tamit ñoo ngi daal wër client yi fan la ñu nekk Mamadou Sakine. fii ci Soumbédioune liggéey bi demeewul noonu tabaski bu mu jàllee ba léegi ay mool yi néew ñoo dem géej. te wuñu jën bu bari amul kay ta yëpp maa dem marché mais mon fex ba am jën pour togg ceeb motax tay bëggon tu ñëw si géej gi ba am ah, xaw ma xayna nit ñi dañu demul tammi ak tabassi bi ñu bay dañuy dem julli ji ñëwaguñu ñu bay dekk ñu tam dañuy ñëw fi bu tabaski jotté dañuy ñibi seen kër yi julli ji fan yëpp ñun dañuy sonn pour ñu am jën. ñekum client mi ñu mo li nenañu tabaski gi ñu joggé moko waral du cher sax xëy na gars yi bu tabaski après tabaski nii ñoom euh, ñoom dinañ bëgg a sax mais xaalis dañ dul am waaw. ñii di mareyeur yi aussi gisuñu seen bopp. jën lu mu ñàkk ñàkk boo ñëwee di fi fekk ñi nga xamante ne am nañu jën am na ñoo xamante ne dañu galaase jën parce que bi tabaski ju jotee am na ñoo xamante yi ñuy jeexul dañ ko galaase waaye kuñ ko jaay lu gisul. li koy wuti bu do am quoi ñun fi lañ taw di leen xaar quoi parce que ñun parce que ñun lañu. su gars yi demee ñëw si ñoo ñëw koy jënd quoi ñun bu la jënd usine ñu yóbbu ci usine bu dee marché noir bi ñu jaay ci marché noir bi quoi voilà. doo am te dina cher wooy parce que gars lu ñu dem quoi moo tax. Molly ak mareyeur yi ñu ngi dundee yaakaar ni semaine bii di ñëw mbir mi war na neex te Soumbédioune commencé di yëngu. jërëjëf Mamadou Sakine xibaar bu neex ci suñu mbokk athlètes yi Cheikh Tidiane Diouf moom mooy champion d'Afrique bu ñetti téeméeri mètre muy lu nga xamante ne amal na ko tey ji ci ngoon ca Douala ca réewu Cameroun ci ñaar fukk ak ñetteelu championnat d'Afrique moom nag mi ngi daw ñeent fukki seconde ak juróom yu tekk Ibrahima Mboub. Cheikh Tidiane Diouf def na tey jaloore bu mag ca Douala réewu Cameroun. nekk na léegi champion d'Afrique atum 1996 ba tey benn doomu Sénégal mënuloon a am raayo wurus bi ci 400 mètres ci championnat d'Afrique loolu jeex na léegi ak ndam li Cheikh Tidiane Diouf indil Sénégal ñaar fukki at ak juróom la am mu def course bu baax daw ci fanweeri saa ak juróom yu tegal as loolu moo tax mu raw ñëpp ndam lii mu am nag dina ko gën yombal qualification bi ci Jeux olympiques yi wara amé Paris ci weer yi di ñëw ndaxte Cheikh Tidiane Diouf dafa bok ci athlète yi gëna xarañ ci aduna bi mi ngi won ci juroom place bi ak championnat d'Afrique di tambali amon na médaille d'or ci Jeux de la francophonie yi muju médaille de bronze ci Jeux africains yi mu nekk champion d'Afrique. Ibrahima jërëjëf ci wàllub euh, football Tëngéej FC ñoom nag daloon nañu seen euh, trophée champion bu Sénégal waa Tëngéej euh, nag waa ligue professionnelle siggil nañ leen bu baax a baax ci stade Ngalandou Diouf la woon ci ay xumbeel yu am solo saison bi nag ñu jàpp rek ne Tëngéej bi ñoom ñoo daal jël championnat bi ci ñaari bëccëg jeextel gi supporters yu bëri nag teewoon nañu ca Fatoumata Savané doon champion du Sénégal nak ndam lo xamni la faaw rek ñu daal di koy féete. Rufisquois nak ñew rek daal di and ak seen équipe gunge ko ci jamono ji nga xamni ñom lañu la ñu ràññee doon champion du Sénégal. waa Zori dinañ jaajëfal xam parce que durant compétition bi. sonn nañ si quoi mais def nañ la tout ba rapporté championnat bi fii si Tëngéej kontaan nañ kontaan nañ. dañoo kontaan moom wax dëgg yàlla ñun waa Tëngéej yëpp oote waa Tëngéej yëpp génn nañ lii lañ doon ñaan nag parce que dinañu ñaan yàlla aussi championnat bi ak coupe du Sénégal di ñaan yàlla rek saa su ne Tëngéej moom la ñuy ñaan quoi. wante nag ñu ngi encouragé waa Tëngéej yëpp di encouragé joueurs yi gars yi sonn nañ si Tëngéej FC xam ne fu ñuy fubal fu ne bu ootee ñëpp dem. wax dëgg yàlla gars yi dañuy bàyyi seen poste liggéey sax topp équipe bi te vraiment kontaan nañ ci lii rek dafa neex te Tëngéej lii rek lañ doon ñaan. mbégte ak kontaante ndax lii dafa neex lu tay ni Sénégal Tëngéej doon champion du Sénégal dafa doon mbégte moo xam ne dafa doon loo xam ne képp kuy Rufisque quoi mbégte la si yow ak kontaante bi ñoom am lépp mu doon loo xam ne daal Sénégal di yëpp mën naa ni ñëpp si kontaan ndax bu ko keneen jëloon tamit ñii lay demee. tey mu yàlla féetale ñu ko ñun ñu réy Rufisque mu doon mbégte moo xam ne loolu kontante mënu ko weesu quoi. organisation bi nga xam ne nag dañ koo def ngir nag njukkal leen ligue professionnelle nag daal di ci wax lépp li nga xam ne rek moom la Tëngéej FC def ci lu baax waaye itam sargal képp ku doon acteur ci championnat bi. Tëngéej nag li mu def na duguleet ndax defoon na ko da ko defaat dem na Afrique dina demaat Afrique encore kon ñoom boo ko seetloo mérité nañu tey xam ne raaya bi leen jox muy ñoo xam ay xale ya nga xam ne nag depuis un certain temps ñu ngi liggéey ñu ngi jëm ci kanam te yaakaar naa ne bu ñu demee Afrique dinañu sargal te dinañu euh, dépassé fa ñu yemoon. Teungueth FC doon club boo xam ni bi mu duggee ci ligue professionnelle bi 2014 2015 la woon doon nag jamono ji club boo xam ni ràññee nañ ko lool ci réew mi moom président am nag di wane rek lépp loo xam ni mooy kontaanteem. football yombul nag bëri na coow bëri na xuloo mais après c'est une parce que li ngay yenu dafa dis donc di gërëm ñëpp ñi ci japp euh, di wax alhamdullilah ndax té sur 14 ba 28 équipe yalla def nga gagner donc liggéey amna ci mais da nga wax alhamdulilah tamit. di wax félicitations rek di baña nagu xamné mom chaque année dañ lay gëna xaar da ngay mësna dugg ben yoon phase de poule bu ma indi won équipe bu ndaw sax ñëpp dañuy fakk ne bu mag la tour bi dafa jitu jëm ji dafa jitu donc on lance un appel solennel à la mairie. et aux autres ñu jàpp ci. waaw kontaan naa moom wax dëgg yàlla ndax que kuy jour da ngay bëgg a doon champion en fait mais avant loolu dañuy damay delloo ñu ko sama jour yi en fait ñoom euh, lépp ñoom la en fait. ñëpp lépp ñoom la après staff bi supporters yi ñoom ñëpp maa leen delloo ñu ko maa leen maa en tout cas kontaan naa en fait kontaan naa yombul en fait waaw yombul waaye.

Savané suñu réew di dalal ni ki euh, démb ñaareelu yoon bu ñu amal championnat d'Afrique ci wàllu beach wrestling maanaam lambu tefes sa fanweeri réew ak ñett yu bàyyi ko Afrique euh, ñoo ngi ci jongante bi ñoo ngi koy amalee ci arène nationale euh, ci biir loolu nag bëccëg bu njëkk suñu réew Sénégal wane na boppam bu baax a baax. artiste bi ñu ràññee ko ci wàllu tengado bu sud Bana Sadio moom nag wane na boppam bu baax a baax ci wàllu photo ci alliance euh, franco-sénégalaise bu diwaan Ziguinchor la ko doon amee li muy exposition bi nga xam ne mu ngi ko tuddee démb ak euh, tey wane fa bërëb bu ñu faate woon Thomas Sankara ak it daal yàq-yàq yi nga xamante ni rek euh, gone yi amaloon nañu ko fa mi ngi leen di ñaax rek ngeen ñu aar la ñu moomal suñu bopp Michel Mendy si tableau yu ñu wekk mën nañu gis yàqute yu fi amoon si jamono manifestation yu amoon si dëkk bi si seen yooyu alliance franco sénégalaise bi moom tam jotoon na am ay yàqute pour sensibiliser population yi loola tax artiste Bana Sadio te ñu koy wooye Tengat du Sud mu daal di def benn exposition fii si alliance exposition bi nak ñu ngi koy tuddee tey ak suba. exposition la bu ñu def dafay sensibiliser population bi sensibiliser jeunesse bi parce que l'avenir dëkk bi jeunesse bi la donc jeunesse bi dañu wara mëna mën am éducation bu nga xamantene ne mëna euh, mën mëna pousser euh, intelligentsia pour man donc jeunesse bi waru ñu mëna perdre lolu donc valeur morale yoyu nga xamantene moy mëna permettre nit ki mëna and ak dignité am bañ a kenn donc valeur morale yooyu il faut que ñu introduiraat ko à travers si tableau yooyu nag si la ñuy si la ñuy jéem a sensibiliser nit ñi si si si si si si valeur morale yooyu pour ñu mën a retrouver suñu suñu suñu suñu quiétude quoi. lu ñuy mën a wax jeunesse il faut que ñu ñu xóotal xel yi jéem a gëstu set lii naka lañ ko mën éviter kon bu ñu defee jikko yi bu ñu defee jikko yi da ngay gis yëpp dina soppeeku. si tableau yi nag am na yi nga xam ne artiste bi fii si Sénégal la leen photo waaye tam demoon na ba Burkina Faso si bërëb bu ñu rewoon Thomas Sankara. dafa dem ba Burkina faço mu xool lépp loo xam ne xewoon na si jamono révolution burkinabé boo xam ne président Thomas Sankara moo ko euh, jiite woon. Euh, bu ñu ko faatoon en le jeudi 15 euh, octobre 1987 ba tey autorités burkinabé dañoo bàyyi. Euh, diwaan woowu noonu nu mu meloon jamono bës bu ñu faatoon Thomas Sankara tey ku fa dem di nga gis di nga am njàngat bu rëy lu xewoon Burkina ak ban njàngat lañu mën a am tey ci lu fa xewoon. waaye si digg exposition bi mën nañ gis benn tableau bu mag bi nga xam ne artiste bi mu ngi koy tuddee Sigi. boo déggee Sigi mooy lël te lël ñëpp xam nañ ni lu ñu fay jàngale moom mooy nan la nit waree nekk góor te nekk góor du du am doole. nekk góor mooy ki nga xamante ne dafay war a mën a am benn esprit boo xamante ne lépp lu ñëw war na ko mën a dëkku kooku mooy góor donc nan la war a mën a nit mën fonk boppam fonk alalu jàmbur fonk lépp donc moo tax lël am solo. Bana Sadio te ñu ko wooye Tengat du Sud moom nag moo jëloon raaye concours bu ñu defoon si Ouagadougou si weeru février 2024 fii nag si alliance ku fi ñëw mën na gis liggéey bu am solo bu mu fi def. te artiste bi su paree Ziguinchor dina dem ba Cap Skirring foofu tam dina fa def exposition. Michel Mendy bu ne sàngeen ànd ak Anne Marie Gomes ci xibaar ci France ma leen di ñaanu guddi jàmm salaam.